naataal fanweer ak juróom ni garab di meññee noonu la xelu yàlla bu sell bi di meññee meññeef bu baax ci dund ñi gëm Jésus nee na man maay reen bi yéen yéenay banqaas yi ku nekk ak man ma nekk ak yow nga meññi xelu yàlla bu sell bi day dëkk ak ñun di liggéey suñu biir xol xel bu sell bi limu ñuy meññal mooy mbëggeel mbégte jàmm dal mbaax dëggu wóor ak teey banqaas bu dul meññi ay doom dañu ko war a dog mu wow ñu lakk ko ay àndandoo Jésus dañu war a meññi doom yu baax loolu day màggal yàlla di ko sargal